mbokk yi dal leen jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi ñu commencé ko Sud Quotidien mi del soit ci politique gi nga xamante ni liñ ci seetlu mu di opposition boo xam ne dañu na tekk tekkaaral ci yenn ci question yi nga xam ne moo ñeel wàccaay élection présidentielle yi ñu jëm yéenikaay bi ne leaderu opposition bi laa la wax depuis ba Ousmane Sonko demee ci biir kaso bi ba léegi kenn gisatu leen kenn déggatu leen mbaadu dañuy daw nag seen responsabilité bi am ca biir Sénat am national ba tey opposition bi dañ na tekk tekkaaral seen noppi gi nag mbaadu leen jural musiba mbaadu dañuy bañ a wax lee dal Ousmane Sonko dal leen nag lii moo jara laajte Les Échos yi ni président Ousmane Sonko moomu day li ko jommal dëgg mooy administration bi nga xamante ci ni moom lankoon na du ko jox ay fiches de parrainage ay avocat moom Ousmane Sonko dañ ko envoyé woon nag citation directe ñaar sax la ñu yóbbu woon benn ca këram benn ca bërëb ba la wax ci xamante ne ni jamono ji bu nu sukkandiku ci avocat Ousmane Sonko yi ñoo ngi koy xaatim pour yóbbulaat ko ca Ndeela Fall te boobu nag mooy dernière moom ca Ndeela dana wuy ji ci yoon ci nii wala ci naa regard yéen kay def taxaw seetlu ci président Ousmane Sonko mi nga xamante ni mercredi ay visite ay alliéem ñi mu yaakaar ci terrain bii ñoo ko doon seeti bokk na ci nag dàmbooj mi nga xamante ni mu ngi rassuré ne président Ousmane Sonko mi ñu gis démb bi nga xamante ni tàmbali na bëggam moom président Ousmane Sonko dina bokk ci élection présidentielle yi ci nii wala ci naa source amam mel na ku yéemu ci état de santé bu président Ousmane nga xam ne bu teyee ñu ne mu ci coma bu subaa ñu ne moom président Ousmane Sonko ci forme de santé bu baax weex nag ñuul na lii lan moo tax mu daal gaaw lool ci situation président Ousmane Sonko ci wàllu wér yaramam en tout bi mu ngi xamal ni lu jëm ci grève de la faim bi nga xamante ni fan fekk mu ngi naan mu ngi ci état de forme bu baax lii yéenekaay bi def ci jàngat tañuy xabal a yëngal waaye nit moom mënta nekk en réanimation des fois tamit mu nekk ci coma des na ci Ba ñi daan laam-laamee est mën na politique waaw wala déet ndekete politique sax moo gën a yéeme jéemee wax ak yéen yenn responsable yi génnoon ci benn bokk yaakaar jàpp na mën nañ dëggal seen bopp ci élection présidentielle yi di ñëw ñoo ngi daj lu mburu dul daj laa la wax ci biir taal ndax Amadou Ba mu ngi ronq benn par benn ci seeni responsable moo xam Aly Ngouille Ndiaye la Boun Abdallah Dionne ba ci Mame Boye Diao yéenekaay bi xabar nañu ne démb démb dong la Aly Ngouille Ndiaye jot wàllam am na benn responsable la bu nekk ci jidda caaroy kaw responsable politique am la woon Amadou Ba fi mu toll la ñuy tudd nag juróomi ñu ngi sànq na leen yóbbu ca biir Benno Bokk Yaakaar kaawa Habib Niang bu Thiès dendandooru Boun Abdallah Dionne la ba ci Mame Boye Diao mi nga xamante ni fan yi ñu génn lu ëpp ay fukki délégués régionaux laa la wax Amadou Ba récupéré na leen yóbbu leen ca biir Benno Bokk Yaakaar sans ñu coowal clé USB bi nga xamante ni moo ñeel Mame jamono ji teg nañ ko ci taabalu Amadou Ba lii di war a ne fi mu toll Ba mu ngi bëgg rey laa la wax ñi génnoon ni Benno Bokk Yaakaar ñoo ngi jaaduwul jaadul ci sama biir bëggoon Jonn ñooñu sax mën naa jàpp ne bokkuñu woon ci man vrai délégués yi nga xam ne ñoo nekkoon ci man ba léegi ñu ngi ci man moom Boun Abdallah Dionne di xam la ci biir yéenekaay bi ne bu dee parrainage bii wallaay dinañ ko matal liggéey nañ lu tax nañu war koo am jàll ko ba noppi nag bokk ci élection présidentielle yi di ñëw 14 régions yu nekk ci Sénégal yépp nag am nañ fa équipe réew mi quotidien ne Ousmane Sonko kay la baare te baare ko baare ba noppi nag tas partem bii teewul ba léegi si laa la wax benn bokk yaakaar bàyyeeguñu ko ndax Amadou Ba ni mu def Boun Abdallah Dionne def ko Aly Ngouille def ko Mame Boye Diao jamono ji moom lay bëgg a def nag Ousmane Sonko mu ngi ci ay tànkam jël benn directeur général jox ko mission bi pour muy ronqi benn par benn ñi bokkoon ci Pastef ay responsable lay teg nii de kenn par kenn laa la wax fi na moom Amadou Ba nag lii yéene moo di a récupérer ay nit dana bi Mauritanie fa la dugg ña ñàkk yaakaar ñépp nag dana leen récupérer libération yéene kaay ki soxla libération dëgg moo di Colline Faye mi nga xam ne ab tubaab la ñëwoon fii ci Sénégal ci jamono bi ñuy àtte dossier Ousmane Sonko bii ci cour suprême ci lañ ko jàppaale moom ak yeneen i nit waaye ni ki démb lañ ko mujjee placé sous mandat de dépôt juge bi dem na bay lijjanti ñëwum fii ci Sénégal ne jaarul yoon beneen situation nag moo di situation mortale alias Soro le révolutionnaire daa demoon Cap Manuel naan day seeti détenu politique yi mu toog la ko gendarme yi fekk de jël dugal ci biir kaso bi lii ku ko wax de ñu yenn ak jàmm bu suba ak jàmm allah